damay yaakaar ne incha allah fan yu néew danañ ci wax waaye li ma lay wax rek mu leer mooy li may wax daal ay olof la képp koo xam ne dafa am loo bëgg ca ki fi nekk di ñu di di jiitee nga xam ne moom la réew mi fal waxagut ay waxam génnal rek loolu moom jarul ku ne am nga ci sañ-sañ waaye génnal rek waaye nekk ci biir këru kilifa kilifa di dogal ngay jaar foo couloir ak koo xëcc koo wax suul adab la suul adab mooy ñàkk teggin boo nekkee ci suuf keppaar kilifa dangay am teggin am yar nit lu mu am lu nekk ci kilifaam teggin moo ko koy may boo amul teggin loo naroon a am lu nekk da nga xëy ñàkk ci fii ay njaacaara fi nekk kenn mënu fee dawal luñ xamul képp ku fi dawal dara bu soobee yàlla na nga xam ne suñ kanam sa kaw lañ jëm ak koo mën a doon na nit ñi liggéey ci discipline ak ci dal ak ci yar ku ko mënul nga génn koo mën doon nag fekkee ne li ñuy wax mënuloo ko génnal ci bitt ak koo mën doon laa wax genn bayuma kenn personne ñom ñepp la wax ko ci xamne li ñu nek gis da nga gis na yow am nga leneen xaat ak lo man gennal ñun li ñu wot gunge président dal mom man ci lañ nek nekkun ci affaire yi leneen mandat ak benen calculer mané man benen mandat buguma dugg ci yenn débat pour le moment ma ngi bayyi ci fan yu néew inshallah allah sori en tout cas dal kep ko xamne da nga nek ci képar président Macky Sall ñi ngi lay inviter nga and ak nga ànd ak ixtiraam adab mooy teggin koo ci xam ne da gis ne nag yow danga danga danga ngaa da ngaa habitude ñàkk teggin ak koo mën a doon jëlee say responsabilité nga génn faas ñu